Medina Baye Medina peyum ngëneel ngir Cheikh Ibrahima Niass mi fi ñaan xeewal bàyyi la way moom mi borom may kon Medina ku fi jaar yéemu si li ñu la may Medina sa suufa barkeel ngir at yu fi barxaama am ganuk rasulullaay Medina peyu sak ak sutura ju mag am nga cër yaa dëkkoo xutba bu mag daara ju mag ju si kër gu mag si lañuy ñuy teral alxuraan muy wax ju mag Medina peyu cheikh yu mag yi cheikh yi laxasaayoo woon di liggéeyal sëriñ bu mag bi sëriñ Aliou Cissé maam Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Oumar Touré maam Abdou Niang Serigne Mbaye Niass ak ñeneen ak ñeneen ñoom lañu fi duppee ay gox yelloo taar Medina mënoo umpe waruloo umpe ak say jàmbaar looloo waral ñuy gëstu ngir jukkal say jàmbaar Serigne Ahmed Dame Niass rafet nga jëf jërëjëf mat ngaa gërëm ngir ñëpp a naw sa jëf yàlla na nga yàgg liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahima Niass yow lañu am Serigne Cheikh Tidiane Ibrahima Niass mi jeex si baay moo xam baatin bi fi baay ñaan mu law ba Nigéria sëriñ Mahi Niass laaw may na la cër ngir lislaam sa nas bi ngay nasal lislaam moo waral kulli muslim di la ñaanal jàmm ak salaam di ko sàkku si yow sëriñ Maamu Niass fay nga naar bi xoromam jaay sa njuree di liggéeyal moom Mawlaana Cheikh Ibrahima Niass mi nga gëm si saayir ak baatin dalal nga suñuy xel ndax dekkal nga yaakaar yépp sëriñ Baaba Lamin Niass amuloo taalibe mel nga ni néegub yàlla yàlla na yàlla yeggali say mbébét ba mu fes ni soorool bu màgg bi ci Medina Baay sëriñ aaxee bu ñas xibbala gi allahu akbar gi ñépp a ci yem ci yàlla alxamdulillaay bi alxamdulilaay bi ngay yeewoo Sénégal yow mii nii di jëwrinu Séné di jëwrinu lislaam tey sagub Sénégal yàlla na la laaw gërëmal boppam nangu say ñaan si kulli muslim yépp ngir lislaam Medina yaay gën gi dëkk bàyyi la aar nañu lay sagal mat nga